murit bu hitta jada jom jajeena amul bu hitta jada no mut le waarati saax ngir jom jajeena amul soxlaati far ci lu kuy waare muy meccitoo kay randu ko saaf lu dul ndox ak lal bu ñam wu wu baax murit bu mel ni le mat nay muslu faw aka daw ngir day joxey ragga kay wàllee katee ni mat nay ragal mat di daw waxtaanam ak barabam baaxul te képp koy déggal du jëm ci lu baax boo dee wutug yokk bul weet ak ku hitte jaroot murit bu hitte jaroot doo mu wax la lu baax bul yokki bul xaritoo kub yokkikat wutalub xarit bu yow sawar gëm yàlla bëgg lu baax ku yokki day yàqe moo tax yokki bon ku ko def du dem du nangu ku dem yow dee ko moytu bu baax ku yokki ak ak lay saf ndax du dem te ku juug mu fel ko faw fa kenn làq lu baax nit ñépp bokku yam jëf yépp bokku ñu yam tànnal ci nit ñi ña gën tànnal ci jëf yi lu baax bul ànd mukk ak kudul koo xam ne kii dana tax ngay yokk xitte di yokkum xel di yokk lu baax koo xam ne kii ànd ngeen nuslëf mu wàll la lëf bul ñàkku yow ci ku bon ñàkkul ba jar ci ku baax ànd ak ku yokku ci yow aslëf lu bon bon gën ànd ak ku wàññi ci yow aslëf wayal lu baax ànd ak ku yokku ci yow aslëf lu bon bon a gën ànd ak ci yow aslëf wayal ci lu baax subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala al mursalina walhamdulillah kon ñaan rek la ñu mën a def ñaan ko ci am ci jeexal. waaw alhamdulilah. noonu koy ñaan nanu xëcc ba yóbbu na ñoo ñee jëkkoon ànd ak moom nu tàbbi ca ñoom ànd ñoom jëm jëm mu jëme nu fu fu fu fu fu fam lañ jëmee loolu rek laay ñaan jërëjëf